wa rahmatullahi wa barakatuh ñu ngi yëkkati kàddu ci ndigal kàddu yi nag du bare Serigne Mansour Sy bu Seyid Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum radiallahu anhu démb wax ni góor gi Massène Mbaye dafa nelaw ni war naa fa yeble ñaar góor gi Massène ci mag ñi xadara bi dese woon ci la bokk ni bi ca des mooy njaboot bu yeewoo këram di Ousmane Mbaye ku ne xam na féeteem ak man ni kon ñaar yëpp jar ma yebal fa délégation waaye comme suba mooy sarax bi bu subaa ngeen am di yow ak xaaji tafsir joom imam Moustapha Ndiaye imam Nuuru Ndaw alxaaji Mëgay Sarr Serigne Papa Ndiaye Oustaz Bara Samb Babacar Diop ngeen dem Tiwaawan waaye su ngeen demee Tiwaawan na ngeen jëkke ci sama rakk Serigne Mouhamadul Moustapha si al amin ndax lu moy dox Sénégal daal lu ma fa bëgg def doy na ma ci ci biir ak ci biti kon rawatina nag lii xew xew biir ci waawoon mu nekk fa yéen délégation da ngeen koy gunge waaye lu ñu fay wax mbaa lu ñu fay def moom moo koy jiite. mu ni xam na ni Serigne Moustapha xaarul kenn ci li war ci kër geeg njaboot lu xew guddi ak bëccëg sol na dàllam balaa ko kenn ki kilifa yi di yëg moom la ca war taxawee na ko ba noppi. xam na ni indi na fi teraanga taxawu na góor gi waaye comme gan yi du ñu dakk di ñëw mu ni moom itam nag dafay sotle sëñ Moustapha da koy jàppale ndax xam na ni li mu yemu gis na mu bu ngeen demee ngeen joxal ma ko enveloppe bii moom ci loxoom ne ko naka dolli ca la mu fa joto def ndax xam nañ ni taxawaayam rafet na leneen luñ fay def nag moom moomu fay mu def yooyu kàddu rek laa bëggoon mbooloo mi xam sababu li tax ñu ñëw te xam ni sëñ Moustapha mooy sëñ Mansour moo jiite délégation bi fi yëfam yéen baal ma wa salaam. baraka baraka. waaw sëriñ bi ne asalaamaaleykum. mais kàddu yi mënoon na ñàkk ndax jëf ji firi na kàddu ki mu jóge ci moom it moom la war mu ni nii laa bëgge nun njaboot jëfe ni mu bëgge mooy sabab bi ne góor gi dem dafa nekkoon kenn ci kër gi bokk ci mag ñi waaye féete kilifa yi foo xamante ni néew nit ku bokk ci barab féete fa kilifa mu jëm ci yenneti lor-lor yi dal njaboot yenn saay kilifa yi joxoñ ko mu jàppale leen ca mu man la mu man daaray kese la wax naa rek ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa taamu woon bu waxyu wàccee jóge kaw asamaan jibril indi ko mu taataan ko Swajir Daaru Ibn Abi Arqam fa la daan dajeeg saxaaba yi ko jox Alqur'an nekk falsafa Alqur'an nekk xam-xam. alquran nekk thérapie falsafa ba ñenn net dañuy ñëw di ko jéem a mokkal ñenn net di ñëw ñu di leen ko tafsiral ngir ñu am ci dégg ci ay dégg-dégg maani yooyu moo indi kutubu tafasir yi bari foo am na fànn bu naan ci fan alqur'aan yi ñu di ko jàng ñii di ko mokkal ndax alqur'aan mokkal ko dafa baax ci dënnu jullit ñii di bëgg a teg maaniya pour man caa am liggéey bu ñu jibal ko ci li fi nekkoon am nañu bu ñu ñëwee thérapie moo leen indi ñuy profiter ci thérapie boobu ndax li yàlla wax wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin ñu cay profité ñoom bu ñu dikkee yii yëpp aajoy jullit la daje fa yonent taamu daaru ibn abi arqam di fa dajeek ñoom mooy daara ji mu njëkk sos ne ne bi ma ñëwee barki xam naa am nañu ko xamoon xam naa am nañu ko xamul woon ma wax ni ëtt bii miin naa ko ni ko miine ndax moo nekkoon sunu daaru ibnu abi arqam bay ma nekk fi di way jur soppul kudul Serigne Mansour Serigne Cheikh Serigne Abdoul Aziz dëkk fii njaboot gi di sunuy doomi baay ñuy ñëw fii booba yar bi dafa bokkoon ci sunuy passion ak yar lëg kaaf dañ koy dugal wax naa leen kenn ci njaboot gi ñu bëri fàtte woon nañu turam waaye moom moonu daan defaral kaaf muy kaafu pitax mbaa kaafu lëg wala kaafu janax janaxu tubaab ñu koy wax taala naka laa ko wax waaye billaay wax nga dëgg kan ma <laughs> ko may na wala ayo leen ko ne daara ne mu wax ko xalifa teg ca loola ndax ñoom ñooy suñuy magi daara moom mi ak alxaaji tamsir mi bu sëriñ Mansour ñoom ñaar alxaaji Pam Njaay bari ñu toog fii bokk ca booba groupe booba noonu yi jaarale yoon aw leen fii def leen lii dox suñuy diggante mu mel ni kon góor gi bët bi ñuy xool suñuy way jur yëre moom lañ ko doon xool bàyyi la bàyyi daara la mag mu baax la laa biir wér sell bëgg lu yiw teey dal yii ku ne xam na ko ci moom yal na ko yàlla fay li mu liggéey ak ndimbal gi mu daan dimbale njaboot yi ah lii ci kër gi la bokk Serigne Mansour mooy suñu baay ndax ñoom ñi féete mag di taaw ñooy bàyyu njaboot gi moom Serigne Babacar Al Amin Serigne Cheikh Tidiane ñooy suñuy bàyyi xadara bi lu ñu fi def ñoom ñoo ko séq di ko doxal ca gën gaa rafet doxalin bu ñu taamoo nun nu des fi desal fi damay foog ni kooku seen tànneef la waaye honneur bu rëy la ci nun ñu yëg ni mission bu nu dox ñoom lañu ko doxal ndax du ku jóg rek doxal leen leen dafa am melokaan dafa yoon dafa tërëlin loola nag bu ñu ko taamoo dañuy cay saw ndax ku ne bëggoon nga taxawu sa kilifa ba mu am satisfaction loolu mooy yoon wi ca Ngajaga Sëriñ Moussa Gajaga nelaw di xalifa Sëriñ Aline daf yónni ma ànd ak ñoom ñi ak ku ca mën joxel ko njaalam muy njaalu xadara bi yëpp mënoon naa yem ci jëfi barki démb ji ndax jëfaluñ ko suñu bopp li ñu fay jëf danoo wane ni sampal mag ñi seen jëf moom la ñuy jéem te ñoom sax yàlla sampal na leen ko ba noppi kon taxawaayu njaboot moo koy sauvegarder taxaw taxawaay ba gën a rafet moo waral nii mu doxale ko su ma ñëwaatul woon su yónnee mel na ni ñëw na yónnee na waaye bi mu ñëwee yónnee nu àndandoo jaalal ko bokk yi jaalal ko njaboot gi rawatina kenn ci ñoom mu ngi joyal tarbiyam ci ay joxoñam kon fa tabarakallahu wolof day wax ni lu am rafet wane na ni bu amul ñaaw kon li mu def dafa ñëw dolliku ci jëfi dem bi jeeg barki dem mu sant ko ñaanal ko yàlla yàlla na ko yàlla gën a mottali ba may ko tawfiq mu dellu si waat ak jàmm yàlla na ko yàlla dogal ñu ngi jaal mbokk yëpp jaal daara ji rakkam yu tedd yi mu bàyyi gannaaw sëriñ Moodu bàyyi Adama ñoom ñëpp ñu jaal leen ko njabootu bàyyi Alsan Mbay njabootu bàyyi Mbay Donde Mbay njabootu bàyyi Alxaaji Njaase Mbay mbooleem mbayeen gi ñoom ñi ko séq sëriñ Mansour mu ngi ma booleeg ñi sëriñ Abdul Aziz wax na ko léegi alxaaji Tamsir rawatina ñi mu ci boole ñëpp te ñoom ñëpp di ji ñu àndandoo jaalal ko massawul ko barkeeloom ci sarax bi mu ni nañu ko teg ci seen loxo jërë ngeen jëf wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu